yi la neex na ma bàyyi foofu rek laa yam yow waxal yegg ñoom tànk tànk defuñu tànk kiiwuñu rek ah du mën a <laughs> <laughs> waaw teg ko ci suuf <laughs> ñu ñu xool quoi ah, élément bi ñëwaat seetaan élément bi ñëwaat jeex na réewu nag xaw ma weewu bëy eh, dan ni njàpp dafa am benn doomu ndeyam bu nekk foofu ci itali mu ni ko yow laa tuddee doom ji doomu ndey bi yëkkati li nga xamante ni moom mooy cinq cent mille yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy ci eh, famille bi nekk fii eh, pour ñu dem tuddi doom ji ah defaral doom ji ay kii après ci ci ci kaw noonu ci la ko papay njàpp wax ni ko tuddeewuñ la doom ji ah, borom teraanga gi lañ tuddee doom ji waaw ah, waaw am daraja Ah. léegi nag moom loolu moom tamit problème la ah. parce que ci yooyu noonu nu xool kan la ñu war a tuddee doom ji yow koo tuddee doom ji yow koo tuddee doom ji ma koo tuddee kenn man man bàyyi ma ma kii waaw moom na ah damay boole ñaari rek bu kii tuddee Mbaye ak Demba ma ni Mbaye Demba soo xooma nan nu sant la <laughs> <laughs> ah, yow nag man dinaa am dinaa am ajaa am daloo di wax ci people moo ko def damay nër. <laughs> mais mais mais loolu faaw ñu lijjanti ko. ah bu ku ñuy tuddee. ku leen a ah, mais ah. nan leen boole rek comme ni ko Pawlish waxee ñu jël ñaari tur rek ab teg ci sant Ndiap ah. garaawul. waaw àdduna lépp teraanga la. na nekk de. acca Adja mi ngi noonu. mais bu adda bi ma lan lañ ko iddee xaw ma lan. mais il foo marier sa gosse. mais booy. non waaw xalaat est ko ah bu nee nga am na keneen ku mu bëgg. yii yàgg nañ te kookoo dugal vidéo bi. Mhm. Ah, bëgg na ko de. nañ seetaan rek. waaw nañ topp nañ kaa bi rek. ndaje goo gi ah. <laughs> seetaan ci daal. seetaan na daal nañ <laughs> lu ci mënti am rek dinañ leen ko toppal. incha allah mi ngi d'accord euh, jaara jaara tamit gis nañ ko mu doon def li nga xamante ni moo di mariage am jaara Thiès nag. kenn du ko dégg ci dara mu nekk xale boo xamante ni macha allah xale bu am fulla la liggéey wàcc loolu la ko ay euh, parents moom seedeel wante itam ñu bari doon ko wax ni dafa nekkoon relation ak ki nga xamante ni moo di Toch léegi nag mu mel ni lépp leer na jëkkëram sax ñu bari xamuñu ko fii mm-hmm. euh, Sénégal d'après li nga xamante ne moom la kii wax nu mu tudd acteur boobu bokkoon Pod et Marichou tur bi laay fàtte mu ne xamuñu ko sax fii Sénégal xamuñu valeur mm. euh, foofu la nekk France di fa liggéey donc mu nekk nag koo xamante ne ku yaru la mm. moo jël ki nga xamante ne moo di Diarra Thiès mais nag ñu bari dañ ne euh, biñ koy takk gisuñu seen waa seen petit gàlle mm. parce que bu ñu demee ba sénégalais xam ko ñoom ñoo tax ñu xam ko ñoom Tata Ngoné ak aussi xale yi nga xamante ne nekkoon nañ seen petit gàlle parce que souvent dañuy gis euh, ñoom ñi ku ci am événement bàyyi lépp dem ndax jaara Thiès euh, ndaxte bi muy am mm-hmm. jëkkër dafa bàyyi loolu mm-hmm. lépp jóge ba cees ñëw ci xewam lan moo tax euh, jaara cees mm-hmm. bi muy xew gisuñu ci kenn dafa am problème wala lan la li gënoon a rafet daal tatàngoo ne dem ñu gis ko yàlla rek a loolu la ñuy laaj. xale bu ci dugg suñu gàtt bi doo doo ko defati doo ma laaj lu tax lu mu doon asan asan tax lu mu doon ko jublu njëkk xale bu ci dugg suñu gàtt bi doo doo ko defati doo ma tax lu mu doon daloo mi ngi noonu mel na ne am na loo ci bëggoon wax. Euh, dana koy bala ñoo wax dara. dana koy dana koy wax heure ménage euh, daal di koy ñaanal yàlla def euh, sëy bi am barke ah, yàlla def que mu am ci njaboot ju barkeel parce que jaara sama rakk la sama rakk la parce que moom ak sama petite sœur ñoom ñooy ànd. Cees sunu kër dafay ñëw ah bu ma yaayam xam na ma papaam xam na ma tout la sa famille xam nañ ma waaye comme ni ñuy wax rek xam nga Sénégal dafa naqari dafa nekk dëkk boo xamante nekk xam nga neex na nekk ci benn côté waaye neexut a nekk ci benn côté parce que euh, boo xoolee jeune talent yi mooy boo yi nga xamante ni nii euh, dan ni ñoom ay star lañ danoo jógee seen petit gàlle mm-hmm. boo yi nga xamante ni nii en ce moment ñoom ñoo nekk ci TikTok bi nee nañu ñoom danoo am li nga xamante ni moom mooy visibilité danoo am buzz nit ñi dañ leen di topp léegi ñoom xam nga euh, lan mooy si problème bi booy dañuy yëg succès parce que ñoom seen biir ñoom bëggante wuñu mm-hmm. mooy maanaam dañ lay wan ni man damaa weex te ñoom weexuñu danoo rouge après ñoom ci ku nekk sa côté danaan man kii maa ko ëpp doole kii man maa ko lii kii man maa ko laa te xamuñ ni àdduna du du du ay affaire ëppante doole du ay affaire kii ay affaire maa mën lii maa mën laa alors lu gënoon a rafet mooy maanaam ñoom ñi nga xamante ni bokk na ak ñoom euh, seen petit gàlle ñoom ñi nga xamante ni nii bokk na ak ñoom euh, bu dul seen petit gàlle sax mooy maanaam showbiz bi nga xamante ni mi ngi koy def alors ñu def seen déplacement euh, daal di ñëw mais ñoom nag soi-disant li may dégg ñoom ñëpp am problème ñoom seen diggante ñoom. Mm. bëggante wuñu. dañuy semblant dañoo foo bëggante wuñu ba pare eh, bëgg affaire de buzz ak ay affaire de star ak yooyu nanu wàccewaat xel yi delloo si xel yi xam ni ñun ñëpp ñun ñoo yam mm-hmm, mm-hmm. ah, ok parce que tey jii bu ñu xoolee euh, ay polémique bari na ñu ngi naan ñoom ñooñu noonu xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk nii du ñu seeg ko amul mm-hmm. léegi yow ñun ñi nga xamante ni ñun macha allah amuñu <laughs> ñun yow ñun ñun yoruñu ñun yoruñu suñu nelaw doyul waaw ñun fu xaw a doy waa xam nga lu tax parce que da ngay gis nga nekk xale xale la ah. d'accord dafa sëy parce que euh, boo xoolee vidéo yi nga gis ki nga xam ne mooy papaam nga xam ne kii xale la mhm. kii judduwul mhm. léegi tey jii waaw nga nekk xale ah nga nekk mais du mag du mag yenn mag yi aussi waa elle est ah, très jeune ah, voilà est-ce que am na 30 yu mat je ne pense pas. xale la kay. Euh, ci boppam. Euh, ah nga nekk nga nekk xale nga nekk xale dugg ci li nga xamante ne mooy sëy mu am mm-hmm. polémique bu bari boo xam topp na si. Mm-hmm. ku nekk di wax. Euh, lan moo tax ñii ñëwuñu lan moo tax lii xam nga wax jooju daal nga nekk xale dugg ci sëy pour man wax boobu yëpp waroon na mën a ñàkk waa mm-hmm. parce que tamit xam nga nit nit dong la daal mm-hmm. wax jooju daal waroon na mën a mën a ñàkk mm-hmm. ku ñëw xayrun ku ñëwul voilà mooy loolu basta laa vie continue euh, euh, nitu démb comme li ñuy wax say dëkkandoo sa dëkkandoo mooy ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal kër bu la succès ëpp ba nga ba nga ba nga ba nga bàyyi leen sa ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa euh, ami d'enfance mooy ñi nga xamante ni eh, yéen a pili bamo pili bang la ni koy wax waaw yéen a aayandoo waaw yéen a defandoo euh, kii na la ay ay tëb ay ay ma grand-mère ay yooyu yëpp yéen a ko defandoo alors yooyu noonu nit yooyu noonu dafa nekk nit ñoo xamante ni. Mhm. Ah, bu leen bàyyi. déedéet mukk ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo la teg mooy maanaam ci métier mooy maanaam euh, liggéey bi may def. Mhm. bi ma ñëwee ñi nga xamante ni ñoo ma ci tàggat. Mhm. yàlla bu ma may succès wala yàlla may ma jàppale ma ba ma fàtte leen. parce que tey jii ñi nga xamante ni ñoom ngay jël ni tey jii ñooy sama ànd lii parce que boo yi dañoo bëgg àndandoo. da damay dal ci digg bi dama dañoo bëgg àndandoo. dañoo bëgg àndandoo. dañoo bëgg àndandoo. dañoo bëgg ah, li nga xamante ni moom mooy ay ay ah, kii am na bës moom laay àndal euh, léegi euh, kii ma doon àndal dafa dafa dem man maa ko sama niveau ah, dépassé na loolu léegi damay topp kii mm-hmm. alors tey jii kooku nga xamante ni nii moom nga xam tey mm-hmm. problème baa ngi nii. problème bi bu amee. ca xew ba ña fa nekkoon mooy ay dëkkandoom ca xew ba ña fa nekkoon mooy ñi mu bokkaloon classe ca xew ba ña fa nekkoon mooy ñi nga xamante ni ni ñoom la defandoon ay ay ay pilibam ñoo nekk ca xew ba gisoo fa kenn alors donc nanu fàttali xel yi euh, pour xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci showbiz bi mhm. nanu wàcce waat seen bopp naturel wàcc mhm. niveau bi naturel <laughs> voilà parce que foo àgg rek nit moo la fa àgg jeex na tàkk dëgg la de mi ngi <laughs> aca Adja. waaw comme ni mu ko waxee rek nañu wàccee waat niveau yi parce que defe naa ne euh, koñ bi nga xamante ne foofu nga juddoo fekk fa say moroomu yaay depuis ba nga nekkee xale di weex di sol ay dàll wala mm-hmm. doo sol dàll ñu lay may ay cent franc ngeen ànd di fawandoo mm-hmm. ñooñu boo jekkee sax jaay leen affaire man duma sax parce que mm-hmm. ñoo fawandoo sa lépp fii la ma fekk en tout cas nit dangay ngay wàccee sa bopp boo wàcceewul sa bopp moom nit ñi tamit duñ la faale rek parce que léegi moom ku nekk am fu la preuve bi nag moo ngi nii duñ ko wax sax ci jaara mais comme tey euh, polémique bi nga xamante ne jur na ci. lii rek lay jur boo xewlee moom nit ñi am nañ fulla ñi ngay jël nag taf leen ci sa bopp. Mhm. ñoom ndeke lijjanti wuñ la ku nekk mhm. daal da ngay jàpp ki nga xamante ni moo la jàpp après mu neex. Mhm. Euh, maman Gentil aussi gis nañ ko moom ak jëkkëram euh, bi ñu doon def émission ci Saint-Valentin bi. maman Gentil nag li lim fa wax mu nekk loo xamante ne. en tant que kilifa en mhm. tant que koo xamante ni euh, responsable nga wante mère de famille mhm. ñu nekk kàddu yoo xamante ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax parce que bi ñu toogee ci plateau bi mhm. moom jëkkër ji dafa ne euh, maman Gentille jàpp na ko lu baree bari euh, muy muy doxaan mu naan ko ba maman Gentille tontu ko ne ko ba léegi sax bàyyi woo yaa ngi ci mu nekk ay kàddu yoo xamante ni am njaay joxal jóob rafetul ci ñoo xamante ne xam naa war nañ am sët waa man Jóob laa te Njaay li dañoo sikk waa <laughs> yaa wax lii. maa ko wax te maman Zante bi bi muy wax loolu xam nga ne ñu bari ay doomam ñoo koy seetaan wala ay sëtam boo demee gis nga ba nekk ba nekk mag am na yoo xamante ne waratu la da ngay joxe un bon exemple surtout xale yi léegi. xamuñu dara ci sëy ñoom ñoo war a jàngale gis nañ ko rakkam bi ku ci mel ni rama da ngay gis dafay jàpp nit ñi di leen conseiller ci affaire mariage kon moom bu demee bay def yi ci plateau. y'a problème ci ay mère ak paa. xanaa ngi xool élément si waat rek mi ngi noonu daal mhm. waaw. wax <laughs> est-ce que xam nga dafa maa bett may doxaan. ah bon waaw. si nga dëkk. boo ko naa léegi. ba fii day raas naa waaye man fi ne kuréel gi rek. non flagrant délit man mais dans le sac. mais dans le dans dans le panier tey. ah mais dans le sac man ko dans le kii lal. noo ko géré noo ko géré. mu jàpp la fit fekk max ma gel ci la doon. way bàyyeegu ba tey mu ne ma nan dem ma ne ko fu mu jëm. <laughs> ne ma ñibbi. ma ne ko ñibbiwuma dafa am yu may doxi. ah ne ma ah ndax ci kii nga àndal tax nga ni da kii. ba pare yor sama oto di ko doxaane. way eh. nga ne soxna si wàccal oto. waaw ma ne waa lii lu mu doon voilà Adja donc euh, mi ngi noonu waaye moom ba mu waxee loolu de mel na ne jëkkër ji nag dafa mel ne comme ku bëggoon mu génn foofu mu bàyyi wax ji parce que boo déggee jëkkër ji mu ngi ko naan non léegi bàyyi naa loolu mooy bàyyil génn foofu. moom mu ne ko bàyyiwoo. xam nga loolu loolu la ko tontu. Mm-hmm. Euh, maman Gentille ak moom ñëpp xam nañ ko ci théâtre bi nga xamante ne da koy def ak jëkkëram. Mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ni euh, defoon nañ ko foofu Sen TV. Mm-hmm. après nag ki ñu gis ci ay commentaires yu baree bari ñu ne carrément même bu fekkee sax jëkkëram da koy def daf ko war a suturaal ndax jigéen mooy suturaal mooy suturaal góor comme ni nga doon wax. tooñ bu woon tooñ waaw waaw man noonu laa ko gisee je sais xaw ma. dañuy dem waaw dañuy dañuy mel ne comme frère. ñoom dafa mel ni ay géwél lañ sax tooñante waa ñoom duñu ay géwél. ay géwél euh, maman sant pa bi gis nga ni mu to ni mu euh, defee mbaxanaam bi mbaxana bi moom xam naa ni xam naa ni géwél la moom tarkal la euh, ci côté boobu mbokk pa ah Maria Sine la alors. pa bi il paraît que sax kii la policier la xaw ma commissaire. Mhm. waa côté ah, Pikine waa loolu mi ngi ci kii bi alors man Sénégal dañuy dañuy jaawale. Mhm. dañuy jaawale personnage. Mhm. ak beneen bi persona personnalité. <laughs> ñaar yëpp nga fi wax yëpp benn la. personnage ak euh, ak ak homme euh, homme qui joue les les les les séries. homme qui joue homme de média. homme qui joue des des des films. homme qui joue de théâtre homme qui joue des émission des émissions. maanaam rôle bi daal. dañuy jaawale loolu parce que euh, ñoom bu nu toogee ci télé ñu laaj leen loolu ñoom ñaar ñëpp doon ay acteurs bu nu waxee loolu nan leen ko nangul parce que warata doon problème parce que ñoom ñaar mën nanoo euh, sekk kaf pour que nit ñi mën a reetaan ah. ki nga xamante ni moom moo am stress mu deñ mm-hmm. parce que tey jii nii paa bi tal na gumba tal na leneen lu ah, tëbi teen ci yoon waa gumba tal na leneen lu tëbi teen tooñ laa euh, mën na nekk loo xamante ni nii lu sérieux la parce que dañuy jël exemple ci ay artistes yu baree baree bari dañuy dañuy tooñ seen jabar ñu ko koy nangul mm-hmm. damay takk kii boo xoolee aba no stress ni muy def ki nga xamante ni moom mooy mami damaa jàpp may doxaan loolu amul ah man de foofu laa ko gisee xaw ma nag waaw ah, day jouer ay day jouer pour que yéen ñi toog seen kër mu dindi seen stress pour que wan ni leen ni affaire euh, jëkkër ak jabar danoo war a yabante mm. mais jëkkër jabar ñuy jaay affaire mal ëpp fulla maa la gën a kii maa la gën a kaa tollatu fa. bu ngeen demee ba yegg yenn âge yi sax mooy li ma la wax rek mhm. da ngeen di miinante yabante tooñante beek yooyu mhm. moo tax ma jàpp ne peut-être tooñ la woon rek pour neexal émission bi. non foofu la. jeex na kon ay euh, dañ doon dañ doon tooñ en tout cas commentaire yi moom. Mhm. bari na bari na trop ñun ñi naan ay mère ak paa yu toog fii. di wax waxu ñàkk fayda yi lu nekk lu nekk. exactement Sénégal nag ñoom dañoo ñeme. gaawal dee dañoo ñeme jël loo xamante ne lu teeraat graawal ko ñu jël ko graawal ko yéegi ko yóbbu ko foo xam ne yeggu fa mhm. non mais émission la rek dañ doon neexal émission commentaire moom fa am ni ñoom commentaire rek daloo daloo am na lu mu wax léegi lu am importance personnage rôle bu nit di jouer waaw dinañ ci ñëw sax ci lool ci lool sax nag laa bëggoon ak kaawu sumbulu bi parce que euh, moom lañuy moom lañuy tëjee waaw waaw euh, gis nañ tamit ki di Rama Thiam mhm. Rama Thiam moom aussi gis nañ ko bi mu génnee mhm. mu doon ñaawlu nag série yi nga xamante moom moo ngi moo ngi am léegi gis xale yu jigéen ñi ni ñuy soloo ak aussi ni ñuy ni ñuy exposé seen bopp ci réseaux sociaux yi mu ne ñoom carrément depuis bañ dalee jouer ba léegi bu ñu instant bii bu ñuy toog di seetaan ak seen doom yi du ñu rus du ñu am gàcce ndax ñoom gis nañ exemple bi nga xamante ne wane nañ ko donc képp koo xamante ne yaa ngi jouer série loolu na nga koy bàyyi xel bu baax a baax bëgg bës bu mu leen jaral yenn yi mu nekk nag ko conseil boo xamante da ko doon joxe moom nag nekkatul n'importe qui ñëpp xam nañ ko euh, actrice la mu nekkoon actrice boo xamante ne kay mhm. dafa dafa marqué li nga xamante ne moo di moo di génération bam mhm. te nag moom bu waxee sax war na wax peut-être am na loo xamante ne gis na ko mu jug wax ci te carrément gis na xale yi ni ñu nekkee mais ku nekk tamit ak sa vie peut-être ñoom li ñuy exposé seen bopp arrangé na leen def leen dara ku ci nekk yaay xool li nga xamante ne daal noonu ngay tojee sa bopp ji nag en ñu xool élément bi dellu dégg nit ñi dañuy toog am na ci benn boo xam ne mooy mujj génn ñu naan ko Babel nit ñaa ngi koy suivre pas à pas lañ koy suivre ku mu rëcc sax nga xaar dimanche pour seetaan yëpp mais sama doom yi dama leen di ñaan rek ndax gis ngeen ñun ñun 74 ba léegi ça fait combien d'années ça euh, plus de la cinquantaine te tey jii su fekkonte ni tey jii dañu naan nañu génne waa jamonoy tey ak waa daaray Kocc la ñu commencé woon jouer du ngeen ci gis dara lu leen ci déranger. kenn cœur brisé. ah cœur brisé. Ah, cœur brisé non maa ngi koy dégg xam nga man nag damay sama dox bariwul. mais dañ dañ koy suivre di wax ak man. Mm-hmm. donc nañu jéem a jàpp. dégg nit ñi dañuy toog. am na ci benn. kon nag euh, li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne suñu maman wax na ko moom nag sañ na joxe conseil parce que li ma la wax sànq kenn du wax théâtre Sénégal te tuddloo ko donc euh, baax na moom le fait que mu nekk seen ene nekk koo xamante ne jiitu na leen ci am na ci expérience mu jox leen ay conseil li ci des nag après nag ku ci nekk nag yaay seet. la nga bëgg nga jël la nga bëggul nga bàyyi ko. exactement voilà dañ koy euh, théâtre Sénégal ba wàcc ci defu ci waxu ci loo xamante ni lu ñaaw luñ koy xoolee defu ci lenn loo xamante ni nii xale yi dañ koy gis naan ah sama yaay jii kat moom wala ay doomam lii kat moom mais dama ko bëgg réfléchir sa mémoire un peu parce que boo xoolee léegi euh, Sénégal boo ko jëlee exemple ci TikTok bi xale bi nga xamante ni moo gën a wane jumbaxam xale bi nga xamante moo gën a pàccal xale bi nga xamante ni moo gën a sol lu gàtt mais qui euh, elle a beaucoup de vues elle a beaucoup de commentaires. Mm-hmm. elle a beaucoup de viral. mais xale bi nga xamante ni moom mooy yiw yiwlu. sol ndoget naan ah kay di def ay yëfi mais ak yooyu. elle la peu de visibilité. <laughs> tu vois alors les les castingeurs mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy jël recruter les les les filles. Ah, euh, quand tu viens dans le casting après il va elle va dire quand tu portes des ndoguettes il va dire et toi allez jouer après tu joues les jeux aw rek il a dit ok ah, baax na demal euh, après quand tu portes les <laughs> alors wax yamal foofu mais mais ils choisir les boys molles ils choisir les boys vulgaires ils choisir les boys qui sont trop capables après ah, c'est ça la réalité en tout cas daal looloo yàq théâtre bi léegi nag. booy dañuy série de booy film. théâtre léegi dañuy film jeex na mi ngi noonu aja aja eggalil. d'accord euh, dañuy desandi ak ki nga xamante ni moo di bébé Aïcha moom aussi gëjoon nañ ko gis trop. Mhm. keroog nag bi muy def interview gis nañ ko moom ak journal xaw ma journaliste la xaw ma lan la bi mu ko laajee nag ci divorce sax mu ne na génn carrément foofu bu mu ci dugg. parce mhm. loolu vie privé am la mais euh, journaliste bi di insisté nekkoon na ci na ci wax. Hmm. ci la jugee nag xaw ma lan la ko dóor. pour mu hmm. génn néegam élément waaye. <laughs> loolu xool élément bi rek waaw nañ xool élément bi ba pare waaw. question. ok mën ngaa jóg nga jaar nii. maa jub bébé Aïcha il faut ñu gën ci ay leeral mbokk internet ñi seetaan Dakar People. déggoon nañ da ngaa am jëkkër ñu dégg jékki-jékki dégg bébé sa dafa tas. Hmm. est-ce que loolu mën nga ci indi ay leeral pour ñi lay seetaan ak sa fan si. ma ne. loolu mooy sa dernière question ak man. am naa jëkkër awma jëkkër tas naa tasuma du fii laa koy waxee dafa am loo xam ne nit moo ko moomal boppam. mais yéen da ngeen dugg ci nit loqati ko ba mu génne loo xam ne sax waru ko génnee am na loo xamante ne rafetul jógal nga génn sama néeg. léegi yow bu fekkee da ngay wala sëyoo est-ce tamit nga leeral ko ñi nga xam ñoo est-ce que su ma neexee laa ciy wax te su ma neexee duma ci wax jógal génn sama néeg. mënuñoo dem jógal nga génn sama néeg. waaye Aïcha ki Aïcha. hee génnal. bébé Aïcha. barki Serigne Babacar si dama lay dóor lii. Aïcha nu ñuy def ah. génn génn li ñuy waxatee ngi nii ku la ne sama vie privée sama sëy bu ci wax bu ci wax mhm. nga ciy wax bu ñu bëgg la yan xaw ma plateau la ko yan xaw ma lu mu ko yan noonu tamit ah loo yem fi nga la yem loo. ay eh, daloo yëfi daal méttiwul daloo du yow waxal. man man man man méttiwul de eh, bu dugg ci sama vie bu ci dugg. xam nga dama koy wax dama naan dama naan. y a des journalistes <laughs> et des journalistes. journa journa. ok euh, man dama wax man xam naa ni man li ma dal man moo dal xale bi. parce que man dama ni man damaa dugg ci milieu animation bi pour yàq animation bi. pour ruube animation bi yàqate animation bi comme ni ko Pawlish defee ci musique bi léegi xam naa ni kii moom suñu mbokk la <laughs> maye man ak ñoom ñooy man suñu mbokk la quand quand on te dit vie privée kenn du ci dugg n'aurait pas insisté jeex na boo ko ci woon dugg nag vie privée mais nag euh, ni mu gàttee nii moom ay kii ay sa bii ni mu gàttee nii. waaw noonu la noonu la waxee. waaw di ah soo ni mu yëkkatee plateau bi. suñ ko gàttee noonu la waxee. waaw. <laughs> en tout cas en tout cas euh, yéen ñi nga xamante ne aussi yéen ay dem di di di def interview. wuyul ABC. ABC loolu. nga ne ni mu gàttee noonu la waxee. noonu la nee na petit cola la. petit cola <laughs> kii koy xool nii. nga ne ko kërëj te nga ni neex na mais quand tu sàq bi <laughs> oh. nga bëgg bu jàll mu tëla <laughs> du jàll. du jàll. <laughs> da ngay gis da ngay nekk taaw taawu bañ garab. bañ garab ñu ne la soo soo amee saan. dina petit cola soo xëyee suba yëy ko waaye dootuma ko defati. yëy naa bëgg mu jàll noo jàll. non du jàll. yow may rax ba weex xam naa ne ma petit cola euh, euh, artiste yi. laaj daal. petit ñemoo ko yow bi nga juddoo ba tey. sunu maam Sooda dem dañ ko doon jox. waaw maam Sooda moom soo nekkee xale boo amee saan suba teel fajar lañ lay yee. ko laa bi jox la ni la yéyee wan na. di nga ko yéy de mais pour mu jàll doo ko nettali kenn. waaw comme ni ni va ni vaakin sax tane na niim. dara bu niim. Mouhamed Ndiaye de lekk ak naan la ko def ki ne ci résist kii ci suuf fii. Ah. technicien rajo bi. ma ne ko ah yow Mouhamed Ndiaye yow lan mooy sa problème ak Petit Cola c'est quoi ton problème avec Petit Cola parce que eh, matin petit eh, soir petit quand les émissions petit. petit ah kii eh, quand ah. tu pars c'est petit. mais c'est quoi ton problème. na waa kenn xamul nii la. ah nag waaw nee nañ day faj waaw yoo xamante ni. yu bari yu nekk ci biir. gis nga kii. gis ñi ngay def ba ABC mayete la fi rek benn jox la fi benn. ABC yamal foofu ABC dégg naa ci kaw lal. yamal foofu ah kañ lay yem foofu kañ lay yem moom damay toog xalaat du ma wax mais moom day wax. day wax yow dinañ déggoo. ah ñu sama kalam ngeen koy tàppante. <laughs> yow del wax yow yi. waaw wax del wax li mu sëñee wax du ma ko wax. c'est moi qui décortique les situations allez. ah <laughs> euh, donc noonu la demee affaire bi rafet na mais les journalistes il faut que vous les les les les parce que ici euh, à Leral TV. Ah. on a des journalistes qualifiés. waaw <laughs> dañoo am ay journalistes yoo xamante ni quand quand on on articule les les situations on va gérer mosoo gis benn affaire benn bêtise ñu ni kii élément leeral la non jamais de la vie. parce que même boo ñëwee fii indi woon niveau ah les gars vont euh, vont t'encadrer après tu vas avoir les niveau le niveau dañ lay teg ci kon moi j'ai pas euh, avant j'ai pas de niveau mais maintenant niveau bi yéeg na aja <laughs> commentaire parce que journaliste déjà interview ci kaw lal ñu jàppale di la bumax nii. ni da ngay am fulla. ci kaw mhm. ñu desandi nag ak ki nga xamante ne moo di sumbulu parce que gis nañ série bété bété bi nga xamante ne génn na de épisodes nag moo dawagu mu jur coow loo xamante ne kenn xamul nu mu sumbulu nag li mu wax dafa rëy ci côté ñeeño yi parce que nee nañ ay affaire xawma tëgg. ñi sant caam waa mm-hmm. moom nag fii nii euh, ci séquence bi mu ne xawma lan tëgg xaraamata njaay mm-hmm. moom bété bete piir la te aussi deretam dafa set ñu bari nag di ko ñaawlu ne doonte série la waruloon wax euh, tëgg xaraamata njaay parce que rafetul mm-hmm. euh, ni dafa nekk loo xamante ne dafa sacré parce que nit ki nit ki boo ko xeebalee li nga xamante ne moo di problème am ngëm-ngëmam ak jàngoroom xeebal nga ko léppam donc nag li mu wax ñee ñooy gis ci seen bopp ñu bari nag nee nañ dafa réussir xamante ne rek moo di rôle bi mu ko rôle bi ñu ko jox personnage la après jeex na rôle am la réussir rek mhm. li tax ma ne la rôle am la réussir mhm. waaw foofu lenn rek laa am lu ma ciy wax mhm. euh, Sénégal dafa am dara loo xam dañ koo tàmm gis nga da ngay gis dara dafay xew ci suñu societé xew ci suuf ñu koy dund chaque jour di ci teg suñu ay bët chaque jour mais duñ ko wax de duñ ko garaawal de mais il suffit que ñu génnee ko jouer ko ku nekk commencé di wax li mu wax dafa ñaaw mais attends c'est la réalité looloo fi am rôle bi mu joué mais am na ñoo xamante ne ñoom c'est leur façon seen vision la Sénégal moo ngi moo ngi fi am am na ba léegi dëgg la dëgg la gaa léegi léegi am na ñu bëri ñoo xam ne démystifié nañ ko man xam naa ci dara am na ñoo xam démystifié nañ ko mais am na ñoo xam ba léegi ñu ngi koy dund peut-être le fait que wax na ko ci télé théâtre la mais man dama jàpp ne li tax mu wax ko mm-hmm. c'est pour conscientiser les gens pour mm-hmm. wax leen ne lii daf fi am réalité la Mm-hmm. parce que lépp loo xam ne joué nañ ko yeetee tax. Mm-hmm. donc rôle boo xam ne joué na ko mm-hmm. dong la. te comme que créé na polémique bi yëpp dafay wane tamit ne rek que na rôle am tamit. te ko xam tamit xam ne nekkul koo xamante ne. dafa yaradiku wala dafa réew. parce que sungulu mii non la da nga koy wax rôle buñ la jox la. exactement bi muy génn bi muy génn këram la jël sumbulu bi tegee ko ne. dem fa seen jouer euh, série bi parce que boo xoolee commentaire yu bari am na ci koo xamante ne nee na man léttkat laa caam laa sant. mais ñu bari du leen leen létt parce que dañ naan. waaw ci commentaire yi da ngay gis ku nekk. ñii naan amoon naa côté. avant de parler moi le ñeeñu international je vais défiler. ah kay je vais défiler je vais bonsoir ñeeño moderne ñeeño international je suis là je suis classique alors voilà comme ça ñeeño international je suis là alors je vais aller m'asseoir jeex na et après je vais parler balaa balaa daloo di wax dañuy dem xool élément bi ñu xool li waral polémique bi d'abord voilà d'accord toog sax garab yi nangootuñ koo tiim ñëpp a taxaw seen wet bàyyi ko taaj bi alkaali yaa xamul sa bopp te doo ko xam ba keroog ngay dee alkaali nee naa la sax journée boo xamante ne sax da nga yendoog moom jonjonteeg moom dooma laal man bete bete pire laa man bete bete pire laa xoolal boo lekkee géer sax doonoo bete bete sax dooma saaf ma samaak nga doon tëgg xaraamata njaay <laughs> toog sax garab yi nangootuñ koo tiim ñëpp a taxaw seen baay bàyyi koog taaj bi alkaali yaa xamul sa bopp ta doo ko xam ba keroog ngay dee alkaali nee naa la sax journée boo xamante ne sax da nga yendoog moom jonjon teg moom dooma laal man bete bete pire laa man bete bete pire laa xoolal boo lekkee géer sax doonoo bete bete sax dooma saaf ma samaak nga doon tëgg xaraamata njaay <laughs> toog sax garab yi nangootuñ koo tiim ñëpp a taxaw wet bàyyi koog taaj bi alkaali yaa xamul sa bopp te doo ko xam ba keroog ngay dee alkaali nee naa la sax journée boo xamante ne sax da nga yendoog moom jonjonteeg moom dooma laal man bete bete pire laa man bete bete pire laa xoolal boo lekkee géer sax doonoo bete bete sax dooma saaf ma sama ka doon tëgg xaraamata njaay <laughs> toog sax garab yi nangootuñ koo tiim ñëpp a taxaw seen wet bàyyi koog taaj bi alkaali yaa xamul sa bopp te doo ko xam ba keroog ngay dee alkaali nee naa la sax journée boo xamante ne sax da yendoog moom jonjonteeg moom doomal laal man bete bete pire laa man boo nekkee géer sax doonoo bete bete sax dooma saaf ma sama mi ngi noonu donc euh, lii nga xamante ne moom la wax ci li nga xam ne mooy théâtre bi am ñu ko ñaawlu waru ne waru ko woon wax am tam ñu ne rôle bu muy joué dong la mm-hmm. daloo alors euh, Sénégal ba tey damay ñëwaat Sénégal parce que euh, boo xoolee boo xoolee euh, Syrie dafa nekk loo xamante ni dañuy jéem a xool li nga xamante ni moom la situation réew mi fu mu toll. ñu xool parce que boo xoolee euh, gis ngeen ni Sanex ci biir épisode bi am na fu muy wax dialogue national kon donc euh, dialogue wu ma actualité la actualité la mm-hmm. donc kii mooy parti bi nga xamante ni moom la joué mooy maanaam euh, dafay wax ci ñi nga xamante ni dañuy xeeb ñeeñoo ñi nga xamante ni dañuy xeeb géer ba tey mi ngi am mm-hmm. ba tey mi ngi am am na sëy yoo xamante ni en ce amagul parce que lii nga ak laa mm-hmm. alors sumbulu pour ma fàttali leen moom jëkkëram ñeeño la ah, Ablaye Diop xaas donc sama sama sama sama nijaay la. Mhm. man ak moom ñoo bokk. Mhm. alors Ablaye Diop xaas moom mi nga xamante ni moom it ñeeñoo la donc kon moom du jëp jël li nga xamante ni moom mooy baat yu ñaaw yi di ko wax ci famem kon moom du seeg ñeeñoo. Ah. alors ngeen xam ni sumbulu dafay jouer en plus tamit ñu xam ni. Mhm. sumbulu du lii muy wax nii du moom moo koy wax naturellement. mooy waa Evenprod ñoom dafa am ñoo xam ne ñoo lay bindal test texte. donc ci texte boobu noonu. Mhm. des fois boo waree jouer dañ lay jëlal sa texte ni la ah kenn saa suba lii ngay kenn saa jàpp texte am. Mhm. bu ñëwee loolu lay présenté ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan. Mhm. alors texte bi nag du ñu wax ni sumbulu moom mooy moom mooy kii bi waaye ki nga xamante ni moom moo bind euh, texte bi waroon na dindi xaraamata bi. xaraamata bi da ko waroon a dindi. xool nu mu ko gën a rafetalee. mu def ko mais ñoom it lii la bëgg fii la ñu bëgg. waaw parce que parce que tam mm-hmm. daloo comme li nga wax euh, da ngay gis euh, yoo xamante ne yow da ngay ñëw mm-hmm. moom dalay jox juste concept bi mm-hmm. suñ la joxee concept bi yow yaay xool noo koy joué ba nga xamante ne yow di nga nekk ci rôle bi am nag foo xamante ne ñoom dañ lay bindal texte foofu tamit war nañ fa taxaw tuuti ndax texte buñ ko jox bu mu war a wax la wala moom moo ne xaaral ma joué ko nii pour rôle bi gën a waaw en tant que en tant mm. mu nekk benn label benn kii boo xamante ni nii weesu nañu foo xamante ni dañ naan la impro ah, waaw lépp lu ñuy bind dañ naan la texte dañ lay defal texte ñi nga xamante ni ñuy g mm. ah Adja National peut-être mi ngi may seetaan suñu mm-hmm. séer jabaru DG mm-hmm. peut-être mi ngi may seetaan mm-hmm. euh, xam na bu baax li may li may ay li may expliquer ñoom luñ leen def loo dañ leen di bindloo leen lii ngeen di wax nga jàpp lii des fois nag mën nga cee yokk sa benn affaire d'accord mu mais euh, kii nga xamante ni moom mooy sungulu dañ ko war a féliciter bu baax a baax a baax man ñeeño laa de ah. ñeeño laa ci ndey ñeeño laa ci baay mhm. loolu ndaam siré si xujju ko mbag gay del aalimi ci ndaam mhm. donc man euh, ñaawlu ma ko vraiment non non moo tax fu ma romb damay daagu maa ngi dox nu ma neexee donc loolu loolu peut-être lii mais nag parents yi nga xamante ni nag ñooñu ñoo war a wax mooy ñi nga xamante ni Kenza mhm. seen seen doom ah euh, benn géer mi ngi ko bëgg nga naan ko géer nga benn ñeeño mi ngi ko bëgg nga naan ko géer nga loolu dafay war a deñ mhm. ñun ñëpp ñoo bokk yem ca yàlla aadama ak awa ñoo ko bokk donc dafa nekk rek suñu maam yi ñii ni lii lanu ñii ni laa lanu mais loolu noonu pour mën a différencier ni ngay kàllaama bi nga mën a waxee tey jii nii euh, comme ni ñuy waxee bambara bi dafa ni man lii laa lii laa kii pour wax ci bàmbara pour mën mbokki bambaram dégg ko olof bi ah nii lay waxee pour ñii mbokk olof yi dégg ko leneen ni nii lay waxee donc loolu noonu nañ koy fàttaliku xam ni ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay jeex na mu ngi noonu. Mm-hmm. en tout cas juma ñeeñoo ak juma ak juma tëgg de amul fenn de waaw. amul armeer yii nii boo fa demee. amul ñëpp tëdd. Mm-hmm. amul fenn. armeer yi ngay dugg fekk ñëpp tëdd. Mm-hmm. doo gis ni kii nii autorité la. doo gis ni kii nii. Euh, moom mooy yaay célé célébrité bi. Mhm. doo gis ni kii nii moom moo nekkoon star bi. Mhm. lu mu yàgg yàgg yàgg ñooy bokk fi nga xamante ni ñoo fay tëdd. donc kenn jë gënul kenn. ci sama xalaat bu gàtt daal dama dama defe ne. Mhm. li ñuy wax rek ce que les gens euh, pensent tout bas moom ñoom loolu nañ jël jugé ko tout haut wax ko ñëpp dégg. loolu daal moo fi am daal. vraiment. waaw est-ce que sax gis nga sungulu buy wax ci affaire yu ñeeño li muy dégager moom. est-ce que nekk loo xamante ne da koo da koo dund. Mhm. parce que ñu bari gis nañ ni euh, Soumboulou rôle bii mu jël. dafa nekk rôle boo xamante ni daf ko daf ko jël bu euh, au sérieux mhm. parce que tey boo xoolee bi muy joué euh, wiri wiri mais dañuy xool dafa am benn différence parce que bii nii. Mhm. dafa nekk Soumboulou boo xamante ne comme sur bu ñu taxawee noonu. dafa engagé bu jël rôle bi daf ko yëfi boppam buy wax da ngay gis. naan ay sama deret lii loo xamante ne dafa am na loo xamante ne ah, boo ko dundee boo ko boo koy boo koy wanee da ngay daf lay daf koo dund yow Soumboulou dafa mel ni loolu la nekk di jouer. daloo wax léegi rek doy loolu rek man jàpp naa ne doy na parce que déjà euh, yow bu dee yow dans la vie réelle ki nga xam ne sa borom kër la ñeeñu la xanaa xanaa doo taxaw nag. di na ne nekk di ko di ko waaw. di nga gis dina ma la di nga gis nit ñu jox ko rôle mu jouer ko. Mhm. mën rôlam assuré ko ba nga xam ne bu génnee ci mbedd bi nit da koy romb bëgg koo dóor pes su ma juumul ñoom golbeer Diagne mm-hmm. yan na ko yàlla yërëm mm-hmm. am na benn théâtre bu ñu joué woon waa Ndar yi mm-hmm. mooy ki sonaloon ki sonaloon euh, euh, Marie leen xaw ma maam sëy mu génn nee na di dox ci mbedd am ku ko fekk jël jën dóor ko jën bi moom xàmmeetul sax na kii rôle bu mu doon jouer personnage la mu doo ko da nga sonal maam sëy bàyyil maam sëy di ko doo ci mbedd bi kon mooy wane ne kooku rôle am joué na ko noo xamante ne nit ki foog na ne sax lii réalité la nañ jéem a def différence. entre personnage ak réalité. réalité parce que tey jii euh, euh, bu may bu ma bu ma jéewul télé. Mhm. beneen nit laa doon. mënuma li may wax nii mënuma ko sans euh, bu ma jéewul télé. mais du ma wax du siggi xool suñu kër suñu koñ suñu ah, ñi ma xam ñëpp ak ñi ma xam ñëpp dañ naan daa est-ce que moom sax mooy présenté bi donc loolu mhm. damay assurer dégager pour que ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan mhm. ñu xam ni kii li muy def da ko jox fulla ak fayda <laughs> waaw ABC waxati na ABC ah, waxati. noo ko xamee. <laughs> damaa réer. <laughs> man pataas laa dama def ci suuf. man pataas tàng dama sedd ci kaw tàng ci biir. <laughs> Euh, noonu la demee alors euh, loolu la ñu war a xam euh, ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy joué dañuy jéem a assuré seen li nga xamante ni moom mooy seen role ah mi ngi noonu kontaan nañu bu baax a baax ci sumbulu. ah F et fonce. jeex na ayca waaw ah, xawoon naa fay fan. mi ngi noonu moo tax xam naa bëgg kii waat. noonu la sax. noonu la Euh, en tout cas c'était tout waa loolu la bi moo euh, desoon uh-huh. sumbulu comme li daloo wax rek wax na lépp mm-hmm. théâtre la fi mu laal nag foofu la moo tax coow lu bari en tout daal na gën a metti ñun ñuy seetaan rek <laughs> seetaan fi am moo gën ñu ñuy dund loolu loo xamante ne nekkul ci ñun mm-hmm. eh, lii moo fi am de mm-hmm. voilà Adja mel na ne 100 pour cent people waa bëri na nag tey moom semaine bi moom richoon na bëri woon na ci man nii balaa téléspectateur benn ci man maa ngi nii man mooy tax may xam ah, info yi eh, c'est ah, baax na euh, parce ABC nee na xalifa doomu maître Khoureychi baax da doon ngénte semaine bi ah, doomu maître da doon ngénte semaine bi nii waaw papaam ku baax. xalifa. papaam ku baax noonu la mel. xalifa moom it mention mention spéciale parce que tey sa papa mën na defar lu baree bari ci dëkk bi mooy maanaam sa papa. defar loo xamante ni nii monument ñëpp xam ko tey jii boo tuddee turam rek ñëpp xam ni kii lii la sa doom ñëw yàq loolu. ah mais xalifa jëfewu ko. dafa ñëw li nga xamante ni moom la papaam tool toog tànk yi mu nekk xalifa dëbb ci tànk papaam. yàlla na ko yàlla defal jàmm. jeex na xaritu xaritu Barthélémy Dias xalifa ndokkale xaritu Barthélémy Dias xalifa ndokkale <laughs> sëñ Ndeye Ba ngi laa ndokk. <laughs> kii du dem <laughs> jeex na mi ngi noonu kon Adja ñu lay jaajëfal bu baax ak di kontaan ci li nga xamante ne moom nga ñu indiloon muy euh, sa rubrique. Miss 100 pour cent people noonu laa ko tuddee mooy. people Miss ah, K. Euh. jeex na tàkk. mi ngi noonu donc nag euh, dañuy ñëw rek euh, dem ci li nga xamante ne nag mooy suñu playlist samedi. Mm-hmm. tay bi daloo playlist bi tay moom yow laa koy dénk moom nee naa boo fi nekkee léegi playlist bi yaa koy gérer. Ah, ah. tay lan lan lan lan nañ am tay nouveauté clip semaine bii nii. tay tay xam naa ne fi may dugg moom mooy neex téléspectateurs yi mm-hmm. di leen fàttali ba tey yéen a ngi ci seen émission weekend show